l'actualité en continu gars yi ak charge bi ñu fas yéene ak Aliou Cissé bi nga xam actuellement nak il a déjà un choix à faire jëm ci nga xam nak moy donc équipe bam bi ak attaque bi nga xam nak actuellement machallah machallah donc attaque bu Sénégal donc euh, elle se porte bien à 90 mo cent def ab choix yo ñu fas def ab jangat gu ndaw and ci ak yéen Olas porte plainte contre Textor qui en xam Jean-Michel Olas waxoon naa leen fi neen fi nga xam mooy fi mu doon gaare otom sax ak ki nga donc place euh, présidentielle bi nga xam def ko réservé woon ci Lyon ñu koy yóbbu ñu seetaan match yëpp dañ ko nangu ci mom moo dal mu porte plainte contre John euh, Textor bi nga xam mooy président bu bees bi ki nga xam nag mooy donc Amin Sarr ah ñëw ca Lyon juróom-benn weer ak la fa def day dem fi ne nii ca Wolfsburg prêt avec option d'achat obligatoire la donc Amin Thar, le joueur d'origine euh, sénégalaise bien entendu ñu jëm également ci li nga donc joueur boo actuellement il est excellent mom nekkoon du côté donc de Estac hein, donc dem fa donc Lyon muy Mama euh, mi nga visite médicale am ça s'est bien passé Mama un joueur boo très intéressant également qu'il faudra suivre que Ligue 1 euh, française bien entendu mais aussi ki donc Barcola Barcola le joueur de Lyon fi mu ne hein, de du côté donc du Paris Saint-Germain la pépite bi nga Paris Saint-Germain de Paris Saint-Germain mi nga xam ne seen idée gaay moy actuellement recruter ay jeunes joueurs liggéey ak ñoom préparer avenir bañ a jël xaalis gu bëri léegi door ko def ci yenn stari ki xam ne nag mooy donc ballo Gaye Gueye tay lay yegg ci Monaco wala khatim ab contrat bo xamne nak ci juróomi at lañ ko daldi teunk le joueur bi nga xamne nak nag dañ ko won daw championnat France mu daal di du côté de Arsenal fini ni day ñew du côté donc de l'AS Monaco ki nga xamne nak moy donc euh, Cole Palmer wax naa ko fini ni dal lu ñuy di wa donc euh, waa Manchester City 58 millions lañ ci laaj d'euros pour daldi di koy jaay Chelsea euh, te ñom dañu bëgg également kii di Cucurella motax dal war nañu japp nañu war nañu déggoo dernier journée mercato bi gars dal day tang lool tay mom dina neex lool loolu ki xam ne nag Matheus Nunes il est donc officiellement donc accord amna na ñi di wa Wolverhampton ak wa Manchester City sauf retournement de situation donc et d'ailleurs visite médicale et tout qui nga xam également moy donc euh, Pep Guardiola commencé na ci wax parce que ki xam moy Matheus Nunes day ñeu pour remplacer qui euh, di donc Kevin De Bruyne nga xam ne dafa am gaañu gaañu Guardiola nak néna Matheus Nunes nek na joueur boo xam joueur bu extraordinaire joueur bu excellent la bu mën football donc bu ñëwee nak dina am lu bari lu muy apporter équipe bi loolu dal la euh, Pep dal di gis Manchester United ba léegi nak ki nga xamné nak moy donc kii abrabat Amrabat na sacrifié na lu bari hein ba ben moment sax instant entraîné tul Fiorentina ndax dañu ne toogagum pour xol ndax day dem fini d'Al daal euh, Manchester United ñi ngi avancer mais nak nak dal lay avancer ci dossier bi gaay ñi ngi espérer balaa mercato bi di jeex dina dal di dem fofu ki nak également Clément Langlais waxo na leen ko dem né won na len du dem Tottenham mais Aston Villa lay dem c'est officiel officiel maintenant donc euh, Clément Langlais day dem joueur bu Tottenham lay d'Al di plutôt Aston Villa lay d'Al di doon gannaaw bi nga xam ne daaw dañ ko abalé woon du côté de Tottenham Barça daan na koy libéré équipe nationale du Sénégal liste bi nak wara a génn fii ak le premier septembre gis ngeen ko euh, fédération def na déclaration ne dinañ génne ap équipe bo xamné ne day dem euh, ca Rwanda daal jouer joué ak ñom ndax Sénégal qualifié na te Rwanda tok na ba paré waye parallèlement Aliou Cissé day génne liste est ce que liste bi Aliou Cissé di génne da koy def officiellement wala bok da koy ci mail pour man da koy def comme genre mail la koy def communiqué rek comme que ne ñoom Pape Thiaw dañuy def tamit sen euh, conférence de presse pour wax ba équipe bay dem Aliou Cissé bi nga xamné il doit déjà faire un euh, choix elle tactico par rapport à les donc parce que film il a l'embarras du choix Aliou Cissé dañ ko mënee wax ah gi bëri na avec bien entendu Boulaye Boulaye Dia bi ko ci blessure ñëw rek dugal commencé tal euh, saison 2023 bi mom bu ñu xoolee at atum 2023 bi rek il a été époustouflant dougal na lu mat fuk ak ñetti buts ah, ci 2023 bi c'est 13 buts ci kii moy donc Boulaye Boulaye Dia ñëw récupérer numéro 10 bi du côté de Salernitana nek fofu nak mom il a fait un bon choix parce que dafa choisir stabilité manam tok ci équipe bo xamné day mën di évoluer ya xamti wul quoi mom mu ngoog euh, Boulaye Dia très intelligent bu defaatee saison bu ren Salernitana mën na dem fuko neex ya également qui kii Nicolas Jackson la révélation de la fin de saison bu nga xamné ne moo ak ndorteelu tamit saison bi ñu nek mom nga xamné il est actuellement à la bourre laf cat laf cat yàlla na ko cat seexlu mu bañ a gaañu def dara mom il a aussi marqué son premier but mais joueur bo xamné il apporte beaucoup offensivement et défensivement di harceler équipe et que jamono ñu dafa nek ci confiance am donc aujourd'hui il dafa redistribuer carte au sein de l'équipe nationale Aliou Cissé fi il ne peut pas faire un choix sans Nicolas Jackson muy dem ci membre ou pas mais en tout cas mom il est assuré bokk ci liste bi mais aussi ki nga xam donc Ilimane illuminé éliminé doute pas jël Ilimane Star Boy Ndiaye ngeen bëggul moom yàpp lay dundee moom nag ci l'équation bi nek ci mom ndax gis ngeen récemment Aliou Cissé da ko doon titularisé mais temps yi dafa nek en méforme dafa ñak confiance sax lay wax nekul en méforme mais dafa ñak confiance ah, ci li nga xam nak moy donc ndotel saison bi ci Marseille est-ce que Aliou Cissé dina ko reconduire par rapport à la situation wala boog day Nicolas Jackson mu de jouer jouer euh, rôle bi joué jouer parce que Nicolas Jackson est un joueur euh, polyvalent qui peut assurer ce rôle Habib Diallo aussi euh, dañuy wax yi waxam parce que moom beaucoup na ci joueur yo xamné aussi gaay war nañu wax seen Habib Diallo mi dem jugé Strasbourg dem fi nga xam donc Arabie Saoudite mais j'ai pas compris le choix de aller Habib Diallo bu sportivement financièrement comprendre naa mais sportivement je n'ai pas compris Nek na ci équipe bo xam tamit gaay ñi nga encaissé du bari. est-ce que Habib Diallo dina mëna a génn foofu ci Arabie Saoudite wane fa bopam, c'est ça le problème en plus plus hier dafa malchance euh, mënoon a dugal bi et tout donc aujourd'hui mom dafa xawa griller ben ci ay kàttam waxuma ne al Cissé du jël joueur Arabie Saoudite mais bu fekkee ne Iliman dernière semaine bi ñu nek ni gis na donc al Cissé nak mooy def choix le dernier choix lui appartient mais Habib Diallo actuellement donc euh, sur une longue durée lay wax ci dir gu gudd euh, li équipe bi mu nekk fi ne favoriser ko gars yi li ma ko nak information ñu bëggono jox c'est toujours un plaisir hein, de vous servir de len wax way len di like way len di abonner on avance ensemble dans la magie de sport TV suba rek si nous la gars Vous bu également à Baba Show vidéo et également yi rubrique a qui vous